indal waa Sédhiou ay xéewal boo xam ne xéewal bi nga xam ne mooy aaroo leen ndongo daara yi ci biir couverture maladie universelle daate xam na ne xam nañ ne ku wérul munoo munoo munoo munoo jàng ku wérul munoo jàngale ndax wér gu moo jiitu lépp euh, moo tax nag dafa amoon benn convention bu ñu signé woon ñun waa fédération ak waa haute autorité waqf ak waa CMI signature bi ñu ñett ñoo ko sëkkoon mooy fédération nationale des associations Sénégal ak ki nga xam ne mooy Bokar euh, docteur Bokar Mamadou Daf nekk directeur national la CMI

bu ko defee sëñ daara bu nekk ñaari doom ak jabaram ak 700 ndeyu daara loolu nag la wax haute autorité teg ci kaw table bi ne lii dafay man dafay tàmbali jàppale état bi ci loolu nga xam ne ba mu nekk maanaam euh, ab ab ab tàmbali ci Sénégal yëpp. lii fédération bi moo ko signé waaye nekkul loo xam ne sa fédération bi rek moo ko moom bépp sëriñu daara boo xam ne même bu dee bokkoo ci euh, fédération bi yaa ngi ci biir bépp maanaam ndongo daara même bu dee bokkoo ci fédération bi yaa ngi ci biir ñu ñaan ñëpp nañ ñëw jege. Euh, responsable euh, départemental yi responsable régional yi au niveau régional au niveau fédération bi ñu waaw ñu mën a euh, jéggi leen wane seen daara ñu xam seen i daara bu ko defee ñu enregistré leen te ñu def lu gën a gaaw ñu ngi maa ngi sàkku ci ñoom ñu def lu gën a gaaw répartir nañu région yëpp ku nekk am na lu mu am région Sédhiou am na 1500 ndongo daara waa am na 50 am na 50 ndey daara am na 38 jàpp maanaam sëriñu daara am na 60 am na. 38 aussi jabaru Serigne Daara am na aussi 76 ndo maanaam doomu Serigne Daara yi bu ko defee loolu yëpp lañ jégleel waa Sédhiou ñu mën a def loolu ñu xam ne daara yëpp ci la bokk bu ko defee nag ñu ngi ñaax ñëpp nañ ñëw dugg ci seemi même ku nga xam ne euh, joto dugg ci lii na nga fexe nga dugg ci seemi képp ku ci dugg même boo feebaru ci année bi yëpp na xam ne ñàkkoo ndaxte faj na keneen keneen bénéficié wu na ci biir loolu moo tax nag euh, nit ñi dañoo war a jàppalante dimbalante ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla na jàmm sax ci Sénégal yàlla na jubóo sax ci Sénégal yàlla na indi fi maanaam lépp musiba ñu ngi ñu ngi ñaar ñaaral ñëpp jàmm waaye di jaale aussi suñu mbokk yi nga xam ne dese nañu Maroc di jaale suñu bokk waa Maroc di di jaale ñëpp di jaale chef de ci loolu di jaale njaal mi ci moom